salaamaaleykum maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di dellu soir rek comme ni nga ko defee saa su ci live yi euh, bi live moom mën nañu xol bu jeex lañ koy defee quoi ak naqar ak wax ak sénégalais yi quoi parce que tamit man dama yaakaar ni sénégalais dañu am problème quoi euh, Mamadou du Tidiane Diop bi nga xamante ni dafa taal boppam ci buntu pale bi. barki dem rek ci scène bi noonu ñun ñëpp ñu yëgandoo ñu gisandoo aussi te mu mujj décédé te média bi di bind fu nek suicide suicide suicide simolé simolé il s'est simolé xam nga dafa suicidé wu ñep di di wax di wax dafa suicidé wu bon dama bëggoon balaa may sori dara ci laaj bi sax ma je sais pas ndax sama son mi ngi baax ma dem ñu jëli message yu Cheikh Tidiane Diop après ñu ñëwaat ñu ñom déggu Cheikh Tidiane Diop li mu wax li wax mom avant muy avant muy dem di def loolu ci buntu palais bi. euh keroog major bi nekk fa adjoint bi mo fa nekkoon Mamadou ndjay adjoint major Mamadou ndjay mo fa nekkoon daal di ma may comprimé pikiir ma si loxo droite bi si digg bi direct bi na car loxo bi commencé enflé deux jours ñu yob mo hôpital femme ñu ne ma foog ñu lii foog ñu amputé ko si nuñ daw ak man euh, hôpital euh, principal fekk bloc bi baax mu daw ak man si parce que CTO dañ bu mujj amputé euh, bi ma après bi ma génnee CTO bi ñu ko amputé CTO ñu yóbbu pavillon spécial Dantec Sidiki Kaba ministre de la justice fekk na ma fa Bassirou Gueye fekk na ma fa Agnès fekk na ma fa Abdelaziz Mbaye conseil présidence du euh, Macky Sall conseil en même temps fondation Madame Mme Sall fekkoon na ma Nous euh, allons, ne pour l'opération bu après nous, bàyyi la le dem Le plus lépp lu si wax def ba président joxe na pour boo dans dantek ñu yóbbu Paris montel protège pour nous donner un soulagement. Le soulager wu c'est le droit de nañ me ma génnee mon avocat maître Hassan Diamou nous saisir agent judiciaire de l'État Antoine Diop Nous nous saisir le 17 janvier non le le er janvier 2017 le ko saisir jusqu'à présent un an un an Antoine recevoir nous deux fois à ma négociation dama yaakaar ne nit moo gën a fort Amadou Ba frère am bu ñuy wax Nazer Ba yóbbu na ma ba këram mu jël rapport médical bi liir jël dossier yu xool ne dinaa wax Antoine dafa voyage yi dinaa ko wax incha allah mu woolu ñu fay la jusqu'à présent ça fait maintenant deux ans deux ans bon dama ne rapport médical ke tribunal yooyu nit moko gëna gën nit nga xamantene ni nekku won fi Sénégal di liggéey bitim réew la nekkon ndogol bi arrivé ko mu joggé ci un médecin d'état parce que pénitencier c'est est démembrement de l'état c'est ministre de la justice ba légui jusqu'à présent en tant jom amul kilifa bi nga xamantene ni daw mo ci mom pour mu ñaan ko ñek ak teranga Antoine ñek dañ koy maye njekk njekk njekk dañ koy maye boobu ba léegi nag vraiment sës naa ko sës na mais kii bu nekkoon yeneen réew yi fay nañ bu yàgg mais lii bu daloon ndax ko Amadou Ba fay nañ ko lii ma dal nii ndogalu yàlla la mais bu bu bu jaaxee si loxo état. Lui responsabilité état nan dañuy xaar ay cassation dañuy dem fi ak non y a des cas sensibles yi nga xamantene ni muy amadou ba muy antoine li bu ñu bëggoon xam source bi fu mu jaar motul une minute pour ñu xam ko rapport médical bi rapport médical nit médecin moo koy bind man duma médecin sama xam-xam yeggul foofu mais euh, effectivement man euh, sama bopp mu doon métti ñu fëgg bunt bi garde yi yóbbu si infirmière bi si suuf ma fekk fa docteur bu ñeex wax Mamadou Ndiaye c'est un pénitencier docteur la pénitencier la Mamadou Ndiaye seet si na ma hôpital teg ba tàyyi di jooy ndax ndogal bi si loxoom la jaare bi ma pikiir bi ma mayee comprimé ma naan mu pikiir ma si digg loxo deret bi na car génne loxo bi commencé enflé dafa am li nga xamante ne kon man xamut te lii ba léegi man gëm naa ne président xamagul nu mu demee. moom moom mi ma. non sama avocat dem na sama avocat dem na dem na tribunal première instance bi mu ne dañ caa débouté mënuma comprendre loolu léegi état bu tooñee léegi maanaam nit bu tooñee état teg si yoon état bu tooñee te ñun ñëpp état moo ñu jaboote loxo amul prix mais sama avocat am na lu mu leen laajoon moom xam na ko mais mënuma toog fii si télé di ko wax mais Antoine amul benn yoon bu ma woo négociation te toog naa ak moom te toog naa ak Antoine Diome météo man xaw ma sax la mooy météo non non non non non loolu man dal na ma bien avant météo bi dem. pikiir bi loxo bi man mu demee bi hôpital laa toll di ko dégg naan lan moo xew rëbës xaw ma si dara affaire météo boobu moom ça rien à voir man sa non non non non non non si man sama lo man dama sama bopp moo doon métti genre si buru ñëbbu ma si infirmière bi si suuf pikiir ma boobu dara xewul rëbës jàmm ma nga fa lépp météo amu fa dara amu fa. bokul ak matériel ça n'a rien à voir ah ah non man man man xawma lolou man man nit euh, pour ma porte ko si sama famille am nañu am nañu am nañu euh, am nañu wax lolou tax aussi man sama famille dañoo gëm yàlla quoi am na ñu doon wax loolu quoi mais man aussi euh, man man pap nit boo ko porté plainte mënul tax sa loxo ñëwaat état na ma dédommagé li ma war a dédommagé man ma xam ban liggéey lay entamé fii Sénégal c'est ça le problème parce que fii boo état da lay teg si yoon mais état bu tooñee nag alors man Europe laa nekkoon di liggéey nekkuma woon Sénégal franchement j'ai fait beaucoup de def naa at yu bëri en Europe ñëw Sénégal bëgg yóbbu sama jarabaat Europe ñu jox ko ay kayit yu baaxul ñu woo ma ci enquête police centrale si nit ñi place sa mandat dépôt cabinet 10 juge bi Mamadou sekk keroog ba mu may place sa mandat di dépôt nee naa ko Seck mën naa la jox tous les garanties samay papiers mënuma noo grand yow doo fa yàgg dinaa la woowaat xam naa ne doo si dara dafa enquete bu ñuy def rek keroog bi ma génnee hôpital ñëwaat bureau ak sama benn loxo bi daf maa xoolaat parce que ku la placé si daa dépôt ak ñaari loxo nga génn si daa dépôt boobu ak benn loxo kooku beneen affaire la lii man cas bii du kaaw sax tribunal parce que cas sensible la cas sensible la man le président bi lay waxal président bi lay waxal Macky Sall mom lay waxal en personne te je crois que sax dama que euh ñun ay talibé Antoine Seigne salés? la Seigne Cheikh salés? la dama xamul qu'est-ce qu'il y a ba Euh, waaw ah, ñoo anyway waaw ñoom moom nekk la ñuy jëm a def pour euh, saboter live yi mais dara live moom mënuñu ko saboter quoi alhamdulilah sant yàlla rek quoi Bon. Mmh. waaw damay damay damay jégalu nag gars yi xam rek man moom gars yi dañuy jéem a dañuy xaw clip de live tout direct rek au moment mais mënuñu ko mënuñu ko quoi parce que je me suis bien préparé pour pour lolo quoi les mangues ngi avec xel affaire bi bu baax a baax live quoi rien n'est nañ xaw compliqué tout direct rek en attendant tout rek mon xaw a bi xaw stable quoi les man les mots après chef Diop bi nga xamante ni nii ñëpp dégg nañ message chef Diop bi bon man xam ni ñëpp am nañ ko ci internet bi ñëpp am nañ ko ci Facebook ni a ngi côté am ci internet bi ci YouTube bi et tout ñëpp ñu koy am waaw mais nag mu tudd rek affaire yi moom mënuñu si dara mënuñu tere wax quoi ils vont tout faire pour saboter live yi mais incha allah man je me suis bien préparé pour loolu quoi un tout petit peu rek kon euh, euh, appareil bi dellu si waat si si si si maanaam quoi xam nga ok. bon ci li ma bëggoon ñëw. si si si communication bi si wax bi moo di ne euh, dafa Cheikh Diop li mu wax ñëpp ñun ñëpp dégg nañ ko li mu ñaxtu yëpp dégg nañ ko li mu expliqué yëpp dégg nañ ko quoi te pourtant n'empêche que ba tey maa ngi dégg presse bi di wax naan dafa suicidé wu dafa taal boppam dafa nangam dafa nangam dafa nangam dafa nangam man nag message bi ma amoon pour waxu rek par rapport loolu mooy moment bii Cheikh Diop di dem di taal boppam parce que man dama am problème quoi man j'ai des sérieux problème quoi moment boobu noonu. Mame Mbaye ministre Mame Mbaye le clown là ce grand voleur là mingi, mingi, mingi ngi def concert Ngor un grand concert concert Mame Mbaye Niang bi dafa del del te pourtant sénégalais ñoo fa nekkoon ñoo ko feesal je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire quoi xam nga sénégalais ñoo fa nekkoon ñoo ko feesal bon man dama am j'ai des problèmes quoi léegi kan la jign li li dal ki nii wala ñu dañu japp ñun kon du ñun rek amul problème j'ai même pas les mots ça parce que Cheikh Tidiane j'ai même pas les mots léegi lii et puis li gëna a doy waar mooy moment boobu noonu fekk na palais présidentiel ñi ngi fowé alu réew mi yow ben 100 millions wala ben 25 millions buñ joxone ki han ah, mu mën dund dundal delu ci wat comme tëj nañ ko dag loxom mais lan lay yàqal état du Sénégal ak Alioune Sall mi ñi jign alu réew mi yëpp ni moo jël Macky Sall li ñu ko jiiñ moo yàq alu réew yëpp ak li ñuy jiiñ euh, euh, euh, mbaam Mbaye Niang bi Mame Mbaye Niang ay Moussa Cissé Lô ne fi di saaga nit ñi ay ay problème mais est que ñun suñu gouvernement yi est que ay nit la ñu mais est-ce que pouvoir bi ñu fi nekk est ay doomu aadama lañ léegi nag man dama jàpp ni nag dafa doy na quoi man man dama jàpp ni doy na nag quoi il est temps nag ñun ñu jug Sénégalais yi jële fi Macky Sall nag jot na quoi jot na. je m'excuse nag mais réseau bi baaxul dafa mel ni day déconné mais ma desam wax ni li nak ëpp na quoi c'est trop parce que li affaire bu bakken la quoi te bu len xam ñaata sénégalais ñoo am problème yu melni nek ci kaso bi wala ñu nek à l'extérieur nek ci problème yu melni nek ci jafa jafa yu demee ni mais li c'est trop léegi lan la ñi def te pourtant moment bi waji di lay di lakk bopom di dé ci pale bi bobu Mame Mbaye Niang ma ne leen mi ngi def ngandi concert concert bo xamni sénégalais ñu ñoo mobilisé wu dem fa sénégalais ñu ñoo mobilisé wu dem fa feesal ko dell parce que lu parce qu'il a de l'argent quoi parce que sàcc na alur yoom di leen ko joxaat quoi du artiste du kenn ku boycotté ku boycotté pouvoir bini quoi ndax xaalis bi ne ni jox ñu topp pouvoir bi nii Sénégalais yi di dee ñu ñàkk di gën a ñàkk ñu sonn di gën a sonn kenn jëlul benn engagement pour wax ak Macky Sall ci li mu quoi man je pense que nag léegi nag ñaxtu bi doy na quoi jot na Sénégalais yi mobilisé wu nag ñu jug jëlee fi Macky Sall quoi il est temps parce que lii moom vraiment ëpp na quoi lu ëpp tuuru lu ëpp day quoi lu ëpp tuuru vraiment lii ëpp na quoi parce que tey man daf ma wér bu wóor ni doomu Macky Sall amul problème waa famille famille famille Sall amuñu problème ñoom ñëpp amuñu benn problème xool leen kii nii rek nu mu lakkee boppam nii quoi ñu jàpp ko yàq ko yàq xelam yàq xolam dagg loxoom ba pare bàyyi ko mu taxawaalu ci dëkk bi ba xolam yàqu ba nekkatul nit ba mu yegg ci anim animosité bii nii quoi di rey boppam di taal boppam buntu pare quoi te li ma gën a metti si affaire bi mooy déggu benn yoon benn yoon déggu leen Sénégal ñaa ngi si wax. déglu du ministre du kenn bobu ñi ngi fecc di concert Macky Sall mënu sax yi yab ci li sax jour ñu recevoir ay walé sék ak ay pap Diouf ak ay boykat yu ñak fayda yi nga xam amuñu benn njëriñ Sénégal ay mbeur ay nit yo xam amuñu benn njëriñ man nak légui man je m'adresse à la jeunesse sénégalaise yeen jeunesse sénégalaise bi lay waxal quoi mais yeen yeen yéen dem ci ay lamb di jamante foofu di jamante ci làmb yi ah ndax ay Modou Lo ki Balla Gaye ki ay yaaw jaal ak ay kenn xamul di jamante di dee foofu te juróomi dërëm di ngeen ko fa jëlee régler seen problème juróomi dërëm di ngeen ko fa jëlee bu régler seen problème bu ngeen pare erreur bu ndaw bu ngeen ko defee bu ngeen jàppee tëj leen ci kaso bi ah yéenay dee ci kaso bi buñ jugee ci loolu yéen mais jeunesse sénégalaise bi yéen mais yéen a dem ci stade yi di saan ay làmb ba dee ci dee ci stade miir bi daanu seen kaw di saan ay football nawetaan yu ñàkk fayda amul benn njëriñ mais s'il s'agit de ñàkk fayda yéen ñëpp ngeen mobiliser wu quoi si sa su dere lamb la su dere lamb la wala mu nekk football nawetaan yu ñàkk fayda yi fi ngeen dem di saat ay nawetaan wakam ba mil bi daanu ci kaw jeunesse bi yëpp ñi di dee comme pas possible ndax ay football ay nawetaan mais li avenir u Sénégal la ma répété encore li avenir u Sénégal la lu ngeen nangu di dem ci ay lamb ay football ba ay dee di len ci fek ay gémi di len dóor len dóor ay lacrymogène di leen ñàkkal fayda di leen dàq di leen def yu ñàkk fayda te bu desee lu dul avenir u Sénégal ak seen avenir u doom ak avenir u réew mi kenn du leen gis mais lu ëpp tuuru xanaa ay nit wala Macky Sall moo ñu gën wala pouvoir bi ñoo ñu gën ay Mame Mbaye Ndiaye nga xam ni Mame Mbaye Ndiaye tekkiwul dara ay Moussa Cissé Lo du ñu ay nitu dara ay nit yoo xam ni mérité dara ci ñu jël réew àllu réew mi di ko foowe nii yàq ko ba ay sunu frères di taal seen bopp buntu pale di rey seen bopp hôpitaux yi dama nga xool nit ñi am problème lu ñu fajoo jeunesse bi di nelaw quoi ana jeunesse sénégalaise bi anamu man damay wax man dama wax man man man je juste dire aux Sénégalais xam nga que ni jotna nak ñu bayina bi quoi. mané jotna ñu bi pour mobiliser wu pour Macky Sall quoi dafa quoi. waaw pacifiquement ñu Macky parce que mënul dafa télé. masse nous la état bi li kenn xamul lan la amul lenn lo xamni yow sénégalais ba pare boole kook fitna boole kook yàq boole kook réewante prononciation bu ndaw sax jël wax eh, bi xaw a defaraat ay kàddu sax xaw a naaj naaj sax ci Cheikh Diop ni mu deewee nii sax defuñu ko après ñu jug ne dafa xaru quoi te ñoom ñoo ko rey Macky Sall moo rey Cheikh Diop moo ko rey kii kii kii kii kii état bi ñoo ko rey kii état bi ñoo ko rey ci kaso bi lañ ko reyee bu yàgg ci kaso bi ngeen ko reyee procureur yi ñoo ko rey justice sénégalaise moo rey kii yéen ko rey ah bu kenn taxaw fi naan kii dafa xaru Si je n'ai même plus les mots quoi je suis vraiment désolé quoi suis de ma maa quoi. ay criminel kese ay criminel qu'il ñoo fi ay criminel kese ñun ay criminel qu'est-ce lañ man a man ñun sax ci affaire yi lañ bokk ndax ñun dañ ne les top top lañ dans quel pays nous sommes un pays de lâche vraiment c'est malheureux quoi. malheureux c'est malheureux barki alxuraan